asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yu ñuy suivre sur wasaare lamb sur wasaare TV ah diñ ko defee rek kon comme que ñun ñoo leen ko promettre nee naa leen wax dëgg yàlla comme que feebar bi daa bari te ñu bari dañoo nekk ci stress ñun tamit dañuy fas yéene rek dugg ci ruq-ruqaan yi rek fas yéene indi leen li ngeen xamante ne au moins boo ko seetaanee seen xel du dem ci feebar boobu di ñaan yàlla feebar moom moo fi dugg mu génn ak jàmm ak salaam comme que may wax rek à chaque fois amaguñu moor te yàlla buñ ko am dëkk yi nga xamante ne instant bi lëmbee na foofu noonu yal na dem ak jàmm ak saam ndax Sénégal jàmm lañ xam xamuñu lii tey nag euh, ñu ñëw ci teeru bi ñëw seet si koo xamante ni kon ni may wax rek président des amateurs mu nekk koo xamante ni moom it dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy xeex bi parce que ñii gars yi ñoo ko fi teg mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla muy amateur yi muy ñi nga xamante ni képp koo xamante ni da ngay wax ci mbedd rek ci moom nga ko war a jaar parce que moom moo leen fi représenté ñëpp xam nañ nag instant bi li nga xamante ni moom moo am ndax gis nañ ni xeex bi nga xamante ni arbitre ak waa CNG moom mu bokk ci li nga xamante ni moom mooy ci bureau boobu noonu ñu fas yéene waxtaan ak ci moom ak loolu fas yéene waxtaan ak ci moom li nga xamante ni fan yi gisoon nañ ko mu génn di wax ci affaire roi des arènes loolu yëpp incha allah dinañ ko waxtaan ak moom muy Doudou Diagne Diécko moom lañu seet si bàyyi ko mu nuyoo ñu continuer li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay amee di la ziar di kontaan si yow di nuyu njabootu làmb yëpp di ñaanal ñi feebar nekk si hôpital yàlla suñu borom wéral leen si prison yi aussi yàlla may leen fu ñu jénnee dellu seeni mbokk di nga même aussi ma wax li nga xam ne mooy feebar bu bon bi nekk si réew mi te képp kuy sénégale war si bàyyi xel. comme ni ko président de la République waxee ngay raxasu comme ni ko médecin yi waxee tamit ngay raxasu bañ a nuyoo bañ a jegante nit bañ a dem it fu mbooloo di am il faut ñu xam loolu feebar bi feebar bu bon la ku seetaan Italie ñaata moor la am ku seetaan Espagne ñaata moor la am ku seetaan Chine nga taxaw fii yow neen Sénégalais naan gëwuma feebar bi dëgg yàlla euh, xamuñu ndax nit nga wala doo nit yaa ngi dégg lu ñu xam nit nga wala doo nit feebar bi nag moom mu ngi fi ku yebu nag ñuy ñaan képp kuy amateur làmb wala ngay mbokk wala nga am xarit euh, sàmmal sa bopp raxasul wala nga jënd sel raxas say loxo laxas ko say njaboot xale yi nañ leen téye si kër yi ñu bañ a jénn ku nekk daal fagaru ñu xeex ak moom parce que xeex la guerre la boo xam ne benn nit benn kenn lañuy ñuy geeral muy feebar bi kon nag ñu ngi ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm génne fi feebar bi sànni képp kuy jullit képp kuy catholique koo munti doon chaque jour day ñaan yàlla suñu borom feebar bi jóge fi bañ fi lor kenn wasalaam waaw nuyoo bi bas am na solo parce que li muy wax rek feebar boobu moom wax dëgg yàlla du tàyyi di ci wax parce que kenn ku nekk daal lañ la tere war nga koo mën a bàyyi dafa nekk loo xam ni ñu naan ab balaa la rek kon nag kenn ku nekk na moytu éviter li nga xam te ni moom mooy dajaloo bi xam nga kenn ku nekk xam fooy teg sa tànk ñu gën a yokk set bi daal gëm naa ne loolu daal bu ñu ko defee incha allah feebar bi moom duñu gaaw a dugg gannaaw nag ci feebar bi coronavirus beeg yooyu yëpp tonton du Diagne ah, ñu gis ne yow. yow yaay président des amateurs gars yi ràññee la ci macha allah nga nekkoon fi sax ñu folli woon la xam nga am ku ñu indi woon gars yi daal demande waat la nga ñëw falak folli boobu noonu mën nga see ñëwaat. man yàlla dogal na kenn musuma folli waaw kenn musuma folli. Ah, kañ faloon na. kañ faloon mën naa ne sax man maa ko indi pour ñu fal ko man kenn musuma dàq waaw kenn musuma dàq donc lañ ci nekkoon. dem ba 2012 ñu bàyyi après ñu woowaat ma ma ñëwaat mais man kenn mosuma dàq waaw kenn mosuma dàq. boobu doon peese sa bopp di xam ne daal yow. am nga sa bopp adduna bi boo nekkee fenn tuuti da nga war a bàyyi seet ñeneen ñëw ku nekk def sa xalaat parce que kenn moomul lépp yàlla rek moom lépp donc bu ñu defee loolu tamit ah. ñu woowaat ma pour ma jàppaase donc ñun làmb rek lañ bëgg même bu ñu nekkul président amateur chaque jour ñu ngi si làmb ñu làmb lañ soxla ñu dara loolu amateur donc ñun ay amateur la ñu xëccu ñu dara tamit loolu amateur làmb ñun amateur la moom la ñu bëgg làmb lañu bëgg bu ñu ba léegi làmb mooy suñu sport passion bi nga xam moo ñuy bëggal donc même tey nii tey bu làmb amul damay toog sama kër jénne ay kaset yoo xam ne kasetu làmb la toog di ko seetaan donc làmb lay làmb ngay bëggee wax nga ko léegi kon donc ban différence moo amoon entre làmb démb ak làmb tey parce que danga bëgg làmb est-ce que différence bu bari am na. bari na différence làmb tey amatul cosaan. ngemb yi bàkku yi mbër yi du ñu bàkku donc mbër yi léegi du ñu bëri seen biir donc boo xoolee loolu dafa gaara làmb ci bu njëkk euh, Moussa Diame bëri na feeg Robert Diouf bëri na feeg du bakka donc yooyu te ay séeréer donc tey dangay xool mbër mi ne la géejuwaay laa bokk du ma bëri mbëru géejuwaay kii ne la parcelle laa bokk du ma kii ne Pikine laa bokk kii ne te adversaires yi amatuñu si làmb loolu day rey làmb loolu waral tey làmb ji taxaw parce que mbër yi si si yoon dañu war a bëri seen biir xarit xarit la mbokk mbokk la mais après làmb sport la rek da nga gis tey ñaari seex kii football fii kii football fii te bokkuñu équipe te te pourtant ay seex lañu ñoo ñoo bokk benn kii donc yooyu amul solo sport amul loolu donc yu bëree ngi fi tey làmbu démb ak làmbu tey bokkul vraiment làmbu démb cosaan la woon mbër mi day ngemb sol xaftaan tuus même buy def leneen dina tuus fecc mbër mi ñu amateur yi bëgg ñëpp bëgg mais léegi mbër yoo xam ne ay nañuy sol ay check down kenn xamul lu ñuy sol kenn xam donc yooyu yëpp day dow day tax sponsor daw parce que sponsor social bi moo ko intéressé culture bi moo ko intéressé bu ko gisatul yow ngay def yëfu américain mais il préfère rester Amérique loolu indi yu bari làmb taxaw. ñu bari na làmb dafa am crise ñi làmb doxatul gis nañ ni combat yu neex sax amatul ren da daan gis. ay combat yoo xam te ay combat yu mag fin fin saison combat yu mag mën nañoo wax ni Balla Gaye bëriwul Modou Lo Ama Baldé combat bi ñi naan dina am wala du am ñu gis ni tamit euh, combat Balla Gaye Boy Niang Lac de Guiers 2 bëriwul et tant d'autres bëri nañ nan nga gisee rang VIP yooyu ñu bëri na ñoom ñoo commencé yàq làmb ji yow ban jàngat nga ci am. man du mën a yàq nañ làmb xam nga làmb dafa toll foo xam ne xaalis amatu fi. donc mbër yi nga xam ñooy wax VIP il faut ñu wàññi seen loxo parce que tey boo bëggee tëgg benn mbër fay ko cent millions wala deux cent millions amoo ko tout le temps da am problème donc il faut nag mbër yi wàññi seen loxo ñu wàññee seen loxo promoteur aussi wàññi seen loxo ñu mën a daje bëri parce que aussi booy ut cent ñu fay la ñaari année deux deux combats cinquante cinquante am nga cent millions faut ñu comprendre xaalis bi amatu fi sponsor amatu fi. sponsor amatu fi ndax ñu bari nañ promoteurs yi ñi fi nekk bëgg nañ mais mënatuñu ndax sponsor xorom la woon ci làmb ji beneen bi mooy fan yi ñu dégg ñu dégg la ci affaire roi des arènes ñu suñ papa Alioune Sarr ne roi des arènes reconnaître guñ ko yow ñu dégg la wax dëgg yàlla comme que amateur yaa ñoo la fi teg ñu gis nag nga positionné ne man Modou mooy roi des arènes yow kon d'accord nga ni Modou mooy roi des arènes. waaw parce que li tax Modou Lo nekk roi des arènes ñëpp xam nañ ne Manga 2 mënoon roi des arènes boobu CNG ñëwagul boobu Alioune Sarr nekkul président ku ñuy wax Cheikh Thiaré moo nekkoon premier vice président avec lutte avec frappe ku ñuy wax Bey nekkoon président ñooñu ñoo fi nekkoon tegoon drapeau Manga 2 dégg naa sax léeg am ku naan tournoi la woon du woon tournoi. màng 2 ak Mor Faram lañ ñoo ñoom lañ teg drapeau bi ñu bëri match nul ñu tegaat ko Manga daan ko da koo faqat donc bi ko Manga daanee nekk 10 ans daanu bi mu nekkee dina ba bàyyi bëri jubilé bu dee dafa jubilé dem dellu siwaat bëreeg Tyson Tyson daan ko ñu ne Tyson roi des arènes Bombardier daan Tyson ñu ne Bombardier roi des arènes wala déet Yékini daan Bombardier ñu ne Yékini roi des arènes Balla Gaye Balla Balla Balla daan Yékini ñu ne y Balla Gaye 2 daan Yékini ñu ne ko roi des arènes Bombardier daan Balla Gaye 2 ñu ne ko roi des arènes Eumeu Sène ñëw daan Bombardier ñu ne ko roi des arènes Modou daan Eumeu Sène kon du roi wala de même tey Yékini ak Tyson bi nekk CNG war ñoom tudd nañ leen roi des arènes ba seen carrière jeex war ñu sax toog fu ñuy bañee roi des arènes Modou Lo wala de wa non waxuma bañ nañ ko dégguma leen mais ñoom war ñu ko sax nangu ñu ne Modou Lo du roi des arènes parce que ñoom tudd nañu seen roi ba sonn wala déet c'est kon parce que sport boo jubilé bokkutoo boo ñëwaatee te disqualifié ak titre boo mënti am waruñu wax sax ne di tudd sa titre parce que da nga jubilé bàyyi ñëwaat donc tey Modou Lo la war a xool ñu ñuy defaree roi des arènes am CNG teg si ay sart yoo xam ne ni tey ku ko daan ëllëg sart yooyu ngay wéy mais jaratu ñuy parce que fooy créer ay beneen tournoi pour génnee roi des arènes foo créer xaalis bi amatu fi leneen amatu fi fan nga koy créer fu mu toll créer Modou Lo Modou nga xam ne gëm na boppam tey mooy roi des arènes moom la ñu war xool nu ñu koy mobilisation bi defar ko ba nga xam ne tey sponsor yi fu mu taxaw ñu xam ne Sénégal am nañu roi des arènes. ok président Alioune mu wax foofu d' accord ak moom. d' ma wax naa ko face à face loolu mu nekk. man wax naa beneen bi tamit gis nañ ne Père Doudou Diagne man nag maa jaaxal yow làmb ñëpp xam na ne cosaan la ñu dugal fi benn sport boo xamante ni wax dëgg yàlla am na ñu bari ñoo xamante ni dañuy def année blanche ñoo xamante ni kenn gisatu leen ci làmb ñu dem di ko compétir di am seeni xaalis mais yow sport boobu daal nga ne buggoo ko muy MMA pourquoi Père Doudou Diagne yow nga détesté loolu daal yow MMA sax bëggoo gars di ko wax sa kanam. MMA. sport bu bon la sport de violence la ñun xamuñu ko waaw yow ñun dañoo am cosaan am suñu làmb suñu culture culture boobu dañ ko war a gëm dëgëral ko taxawal ko dëkk boo dem Japon am nañu seen culture seen bëri ak seen façon ngem keneen du ko jël duñ keneen keneen sañul fa dugg pour yàq seen sport boobu ñun làmb mooy suñ cosaanu réew dañ ko war a jàpp dañ ko war a Euh, maanaam sécuriser ko ba beneen sport du ñëw di yàq la MMA waxuma mbëri de bu ñu bëri ji MMA mu leen neexee ñu dem bitim réew bari ko foofu mais fii waruñu ko fi installé ba di def ay fédération MMA loolu laa ne yan wul maanaam. d'accord du yoon. yow li nga moom sa réew yow li nga moom sa kër mu am sa programme sa ba nga juddoo ko yaroo ko ba toll fi nga toll di nga nangu nit ñëw jël ko rek sànni ko fële indi bosam. MMA affaire tubaab la sport violent la tey boo koy xool si télé sax dañuy def internet de 18 ans wala de 20 ans làmb fan nga gis ñuy def interdit de 18 ans. mais violent ci fan la nekk. mais dafa soxor la da ngay xool waaj da nga koy dóor mu tëdd nga koy xoj di ko dóor tant que deful nii loxoom doo ko bàyyi loolu loolu loolu du sport même France keroog dégg naa ñu naan France nag France. ñiy def sport yëpp ñoo taxaw ni sport bi baaxul day rey réew du sport bu baax ñoom tamit foofu la ñu toll. du sport bu baax ñu gisu suñuy mbër am ñoo xam te ne dañ koy pratiquer ñu koy félicité waale mooy suñu mag jooju Bombardier mu def lu am solo barki démb ci MMA bi wax dëgg yàlla gaa yëpp ay ñoom Balla Gaye ay Gris Bordeaux ah ay Eumeu Sène ñoom bari nañ macha allah ñoom ñëpp di ko encourager pour euh, MMA parce que dafa demoon tamit représenter li nga xam te moom mooy Sénégal gis nañ Reug Reug macha allah mu ciy compétir ki ba mu war a am sax combat ci fan yi incha allah mais yow nga ni euh, bëggoo MMA. non man. mbër buy dem dégg nga li ma la wax dama ne mbër buy dem di ko bëri ji man aw ma problème mais buñ ko indi suñu réew di ko fi installé li ma la wax lu leer nañ la man mbër dama ne la ñoom mbër yi tey bu ñu demee jël mbëre jàmbur di ko pratiquer si dëkku jàmbur seen dëkk ñoom garaawul bu leen neexee mais ñun suñu réew nañ ñu bàyyi suñu suñu bëri cosaan ah, waaw ñoom dañoo bëgg a ñëw fi installé fi def fi fédération loolu laa ne loolu jaaduwul. mais est-ce que loolu tamit CNG bàyyiwuñu leen ci. non non non CNG mënu leen si bàyyi. CNG bàyyiwuñu leen si. xam mais bu ñu defoon xam nañ ñeneen ñeneen ko ñeneen fexe ba ñu def ko parce que am na lu tax xam nga sénégalais des fois day bañ réewam wala muy bañ sénégalais am na sénégalais yoo xam il préfère xeex sénégalais comme yow pour jàppale tubaab wala beneen nit ngir xaalis te xaalis boobu ñu lay jox day jeex suba mais nga gëm sa réew. man am na ñu ma woo di ma proposé xaalis pour ma bàyyi li may def. waaw mais dama leen ne boole ma ko waxatee ngeen xam. li ngay ma bañ a euh, xeex ma pour waaw waaw toog ak man nii kay di ma proposé xaalis man lañ tudd. Euh, ñun depuis 1981. góor gi Ibra Diop ñooñu ay mag a fi nekkoon dénk ñu mbir mi. mag ñoo xam ne depuis arène sénégalaise xëy na yow boobu xamoo ñun ñëpp judduwuñu depuis indépendance ñu ngi seetaan làmp avant indépendance ñu ngi seetaan làmb ñooñu ñooñu woo dénk ñu lii mu ñoom góor gi Moussa Thiam yàlla na fi yàgg te góor gi Ibra Diop yàlla na fi yàgg la wér El Hadj bëgg a jàmm góor gi Mbaye Thiam euh, suñu bàyyi Malick Niang duñ ko fàtte yàlla na ko yàlla yërëm ak moom Mamadou Sène ñooñu yàlla na yàlla yërëm yaa ngi dégg ñooñu ñoo fi nekkoon ak Mouride yaa ngi dégg ko dénk. mais mais président des jeunes amateurs am na ñu gis nii yéen seen association bi sax dafa am deux. parce que ah yow xama nga yow yaa jiite président des amateurs. Mm-hmm. mën na mën bu ma ye neexee sax yokk ci du Sénégal mm-hmm. mais dafa am beneen parti boo xamante ni ñoom itamit dafa dafa exister ay prés waaw président des jeunes amateurs euh, am na fi ah. wa président des amateurs authentique mm-hmm. am fi président des amateurs. du daan jékku mais lu waral loolu. non man loolu dama laaj leen ko man xaw ma lu waral loolu xam nga man am na polémique yoo xam ne vraiment du ma si wax talu ma ko sax man man li ma tal mooy amateur yi ma jiite Saliou Diouf Diène Diouf Ngathie Seye alaaji euh, ki nga xam ne mooy euh, Yaafa Diallo Awa juuf ñoom Mbayang ñi nga xam ñoo bokk ñoom Daoudou Diouf. ñoom ñoom ñoom ñëpp yaa ngi dégg ñoom Moussa Thiam ñi nga xam bureau bi nga xam ñu ñoo ànd di liggéeyal amateur yi man ñooñu laa xam. mais ban lañ ci gën a reconnaître. xaw ma ku ñu gën a man xool ay reconnaître rek man xam naa ne daal réew mi reconnaître nañ ma ña ma fal reconnaître nañ ma ministre des sports reconnaître nañ ma CNG reconnaître nañ ma Séné adduna bi yëpp képp kuy sénégalais reconnaître na ma. donc loolu mooy loolu loolu laa am mais li si des du ma fi nekk di polémique suba nit ne la way daf ma tudd dafa wala may utal nit non utu ma man utulu ma nit buzz utulu ma nit ñoom daal ñu ngi si lu ñu ne maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm man tam maa ngi si ma ne maa ngi ñaan yàlla defal ñu jàmm